bi tas na euh, ci ci réseaux sociaux yi ñëpp gis nañu ci déggante ngeen ci diggante bi ak yan rapport nga am ak moom jamono juñ toll nii. waaw Bougane effectivement très sincèrement moom seet si wu ma seet si wu ma euh, waaw yónnee kër ga. parce que tamit dañuy wax yëfi ni mu demee. Mhm. man nag du ma nit ku kii quoi nit kuy euh, fayantu wala yooyu man c'est-à-dire dinaa wax li xew pour lan. nit ñi xam ne lii la. Mhm. balaa ñu ma koy nettalil. dëgg la voilà ma xool ko sama gémmiñ. Mhm. moo gën ñu ma koy nettalil. c'est vrai. Euh, ñëw fa seet si ma euh, wootewul kër ga pour sama famille sama yaay sax doon ma laaj la lu tax kooku def loolu ma ne ma non nit ñi yemuñu ko am. sauf am na booy jóge fa baaba xam nga baaba cameraman moo nekkoon sa cameraman. ah baaba mooy sama cameraman. seet si na ma kaso. ak nee na nee na Aïcha seesi na ma ñun ñaari mag Karim Xrum Xax seesi nañu ñooñu daal laa gis ak ñeneen ñi ma doon woo on pas woo sax di yóbbante nuyoo ci man man na permis moo leen tere ñëw ci kër ga mais direction bi en tant que kër ga moom seet si ñu ma du leen kon heureusement dugguma woon kaso ngir kenn ah. mhm. dama duggoon kaso ngir yàlla su ma waa kër bu ñu déggoo man sax man loolu duma ma déranger parce que yàlla bi ma ci nekkoon daf ma doon set man dama toogoon ci kaso ma ne Macky bu réussiroon li mu doon sax duma ma mhm. suba kenn duma ma lim ci traître yi. yàlla feeñoo kon loolu moo xew te man bi ma génnee seeti naa ko seet xam nga su ma doon kii rek damay toog parce que soxna am foofu la ma fekk dese yaayu soxna si foofu la fekk te soxna ki ne dañu nekkoon wëllëre quoi. Euh, soxna Thione Seck. Mhm. jaaga jaaga jaaga kenn gënu ko baax. dafa daan dimbali nit ñi sax jaarale ko ci man. man nga ma léegi nga ne ma problème cinquante mille nga am ma raccroché si yow woo ko mu réglé ko te du xam sax kan laa koy wax kon kooku dama ko xam dem ba këram toog mu may jox ay ni ma ne ma ko daara jile yow nangam ak nangam nga am na jour ndeysaan ñu jox ñu ndimbalu daara ñu taal oto bi pour dem Mouhamad ak Waly mu ne ma oustaz maa ngi koy doo gis sax oto bu dawee ba koñ bale taxawal ndeketee daa bëgg a yokk ci li yaayam joxe dama retourné ma ne ko sa doom ji am na geste bu mu def xam nga ndax da nga ko cee yar wala mais oto bi mu déparé fee la ma ko yokkaat ci li nga ma jox. Mm-hmm. xam nga kooku doom tàmm nañu joxe muy voilà Mouhamad mooy rakk waale. man mii kër kër kër kër Thione Seck waale rek laa miinul nii ak euh, beneen doomam bi mais ay ñoom Aline pas miin yi dama ni fekk ñu seetaan télé match ay ba Aboubacrine Aline ak euh, Mouhamad daal laa gën a miin ci ñoom. Mm-hmm. voilà kon soxna soosu des euh, bu décédé. mu fekk ma kaso vraiment dama dem jaale naa ko ko jaale ko soxnaam ñu toog waxtaan ba jour boobu sax ndeysaan dénk naa ko ma ne ko Bougane da sonn ci affaire Macky Sall sa essence ñàkk nga ci daw nga Sénégal yëpp léegi au lieu ngeen nekk fii di werante naan siwo bi di waa ji fee ndox lakk bi dafa jaune fii daa rouge léegi booloo leen su fi mag yi jógee ngeen jóg rek leen comme comme ça ma wax ko nii sax te sans ma quelque temps ma dégg mu def déclaration. te man gisoon naa ne bokkoon na ci jeunes yi war a defar Sénégal. Mhm. bon ku nekk nag sa option loolu lañ ci manoon pour wax la relation yi euh, noonu la demee bu ko defee nag xaw ma nag attitude bi xëy na ñoom ñooy xam lu tax defuñu ko lu tax seet si ñu ma lu tax euh, ñëw ñu kër ga wala yooyu quoi. Mhm. mais daal noonu la demee. Mhm. mais sa liggéey biir Sen TV boobu ba léegi. boobu léegi nag kii wu ma fa commencé gu ma carrément. Euh, man waxagu ma ne bàyyi naa waxaguñu ma waxaguñu ma ne bàyyil. waxaguma ne man bàyyi naa waxaguñu bàyyil mais. commencé sa salaire. non sama salaire nag non non non. jotatoo ko non non loolu. non loolu moom dañuy wax yëf yi sincèrement parce que tamit mënoo mënoo mënoo di wax dina bëri salaire bi moom c'est euh, kiiwatuñu ko quoi. arrêté ko d'accord waaw non non non est-ce yàgguñu ko arrêté sax c'est pas c'était pas. yaakaaruma ñu arrêté ko bi ma génnee de. arrêté wuñ ko amul déclaration bi wane ne mm. yow. no wala ñu bind la non non non xam nga à la fin da ngay da ngay da ngay comprendre xëy na man naa mënoon naa fa nekk comme comme comme prestataire misaal masalan man man damaa nekk sama sama métier du affaire rajo. Mm-hmm. voilà voilà man Ameth rajo Ameth man Zik FM bi mu nekk rajo musique laa fa rajo musicale. nga fa nekkoon bii Ndeye Khady Thiam ak kii Safetou Baye Ndiaye. di comment dire di di bref rek par papi aîné. jamono jooju ak ñoom Kolos ak ñoom Pape Cheikh ñu ngi ci VDN bi avant. ci lañ mm-hmm. toog dem Medina lañ man kay maa dalal gars maa dalal gars ah, waaw ñoom Mansour Diop ak foofu lañ ko fekk avant télé bi avant rajo musicale la dama daan ñëw Kolos di animé ma toog ci biir animation Kolos. gars yi ma laaj may tontu ci religion gars yi ma dal rek. ci biir looy def nii musique waaw gars yi lu ne lañ ma ramassé man leen bàyyi leen rek man xam naa fi may koj gars mm-hmm. <laughs> comme am ñoo ne a véhiculer waaye mais année boobu ne ma xaw ma nu ñuy julee yaa tax ma ko. ndeysaan te ci ci ci bi laa ko koj. Mm-hmm. bu doon kolos du ma jot. c'est vrai. Mm-hmm. voilà noonu laa laa ñëwee Simon Simon foofu laa ko fekk. Simon Faye voilà Simon Faye waaw. ñoom fekkoon daal dañu daan euh, dogu sax. kaf benn thermos lañ yor ak deux kilo pain mais kër gi dafa jékki-jékki macha allah télé ba fekk ñu fa gars ñëw mais yàlla daal. Mm-hmm. affaire daal noonu la demee. mais oustaz ak risque yi la ci fekk yëpp nga tëdd ci kaso ñàkk ci sa liggéey ak li ni mel est ce mbir moom bu fekkoon loo war a defaat la di nga ko defaat. maanaam bu ma doon. def lu mel li fi xewoon bu xewaatee nga war a alerté waat est ce que di nga ko defaat ak risque yi nga ci dund yëpp. bien sûr bien sûr bien mooy géej gi am na ndox sax xam dañuy faral di wax ne ay lu ma nit ñi di wax ay lan lay wax nit ñi xam lu ñu yare ay lu ma yàlla di wax ak lan laa wax yàlla. Mm-hmm. boo animé foofu doo ragal dara. gis nga boo jubee dara nga naan lu ma nit ñi di wax ak lan lay wax nit ñi doo dem mm-hmm. no Amad mii bi mu soxlaa mairie bi xeex na ko juróom-ñaari at. Mm-hmm. <laughs> ragal loo nañu ko doo ko jot jaru ko da ngay sonn. nguur ngay xeexal la ëpp doole. mais mu gëm mu xam ne noonu la nit ñi ci lépp la ñu mel maanaam dëgg bu taxawee wax ko rek nga dem yàlla jeex na sa diggante moom maanaam dañ ne dimbali sa mbokk buy tooñ ak bu ñu ko tooñee. Mm-hmm. kuy tooñ da ngay téye ci loxoom ne ko tooñ baaxul. Mm-hmm. ki ñuy tooñ nga jàppale ko mais seetaan moo reyoon waa banu Israil. kaanu laa naa xaw yatanaahawna an munkarin faalu ku nekk da doon def loola neex kenn faalewul kenn yàlla xëy boole ñi doon def ak ñi doon seetaan. Mm-hmm. mbugal bu ñëwee olof lu mu wax ay. du yem ci boppam du yem ci boppam kon effectivement du lu ñuy regretter bu mag yi gagné woon sax du ñuy regretter parce que xam tax day mel ni yàlla taxul woon te nag ma wax leen dara seen àdduna bu leen ci xaar résultat. Mm-hmm. loolu ma conseillé leen soxna si. Mm-hmm. bul mas xaar résultat ne dala fay fekk ngay dund bokk jàppal ne naa ko réaliser mais bul jàpp ne di nga fa fa fekk sinon mooy njëriñ loo fekkee. Mm-hmm. parfois doo dem dañuy liggéey pour yeneen génération yi. soo ne faaw ma fekkee ko noo doo def. non da ngay liggéey pour yenn benn góor dañ ko fekk muy jëmbat garabu euh, kii euh, tàndarma xam nga dañuy yée dañuy tàndarma moo gën a yéex a meññ fii mën a def ay deux ans tàndarma mu fekk góor gu màgget di ko jëmbat mu ne ko góor gi lii doo ko fekkee di mu ne ko maama ma jëmbataloon yii may lekk kon bàyyi ma jëmbatal set yii. macha kon bur xaar sax merci Amad sa doom joojur bur xaar merci ci moom. parce que lu la war la. waay. bul xaar même ngay sëy bul xaar merci si si jëkkër. bu la ko waxee xayru nga xam ne yaa ngi liggéey suba luy sax sa doom yi tekki. suñu yaay danañu sonn ba pare duñu dégg merci mais résultat bi génn seen doom yi booy xaar merci da ngay découragé. am ñoo xam ne yaruñu leen ci merci am na dañ la koy yéex a wax. Mm-hmm. léeg nga solu sax sa jëkkër yéex laa wax ne rafet na rek. nga nga fu ñaaral. nga mer <laughs> am na jëkkër yoo xam ne dañu am toppatoo ci soxna am ñoo xam ne ndeysaan dañoo xaw a nekk taalibe ni man. comprendre nga. man man léeg-léeg soxna ne ma yow doo après ma ne ko ndongol daara laa man xam nga man. ngeen <laughs> di <laughs> voilà waaw mais c'est bon baax na ci dafa baax sax parce que xam naa ne nga nga ne ko ceeb bi neex na. ataaya bi neex na dafa baax lool. Mhm. bu yonent bi sax saa ko tegalee lekk bu neexul du la xam ne neexul. Mhm. danaan suur naa rek. ëpp na jigéen sonn ci waañ wala mu solo ba pare nga koy seetaan loolu day découragé la nit mm-hmm. mais ñu ngi ñaan di ci entre parce que man daara ja laa yoro moo tax man lu bëri dama daf may romba day romba inaperçu quoi mais pour wax leen ne li tax nga laaj ma bu leen xaar merci ci dara bi may dugg a kaso xaaruma woon kenn ku ma naan nangam mais oustaz bu tooñ amee nag ndam ko war am. waaw président de la république bi wax na ko de. waaw le président Bassirou waaw ah oui su su injustice amee. Mhm. ah réparation moom dafay am. waaw su tooñ amee tamit. Mhm. fayu fayu fayu moom fayu diine santaane wu ko. Mhm. fayu mooy li ngay wax nii bul xaar dara. mais euh, euh, euh, ndàmp daal xam naa ne am na ñoo xam ne yaayool nañ ko parce que parce que jël la dugal la ci kaso juróom-ñeenti weer oustaz nga doon xëy benn bis nga doon noppalu ci semaine bi. Ah. liggéey ngay juróom-benni. dégg nga loolu mm-hmm. juróom benn weer rek juróom benn weer nga teg ci yeneen ñetti weer muy juróom-ñeenti weer ñu xëy ñu ne la defoo dara demal ñibbi bu doon da def ñu ne loi lii la santaane même diine sax dafa prévoir ay sanctions mm-hmm. dëgg loolu dëgg mm-hmm. nekkuñ ci pays nekkuñ ci ab euh, ab euh, pays laïque lañ ne loi boobu tam di loi wu tubaab am lu mu santaane mais léegi ñu pare ñu ne bon léegi affaire bi jeex na oustaz ne bon man dama ko doon def te yàlla tax maanaam sama askan laa doon xeexal ma dara mais bu ñu waxee tamit ne wàllum am nañu ci loru la nag te loolu loolu lorule la lorule nekkul oustaz ñi ñu toj seen bitig yi wala loolu la loolu tam ci loru la la bokk. non Amath dama koy fekk sax parce li may wax ne man ngir yàlla laa doon def xaaruma merci ci kenn effectivement bokk la ak di wax leneen la wax ça c'est très important mooy man sama waa kër ndàmpaay bi li ñu daj ci man loolu rek moo waral ndàmpaay maanaam tiitaangay bu ñu dugal sama waa kër rek sax. Mhm. jar ndàmpaay. tiitaange bi ñu def sama doom yi rek ak samay soxna rek mm-hmm. imaginel ñàkk nelaw ñàkk ñoo ñàkk xoolal sama yaay sama yaay boo xoolee aasam sama yaay dañ ko doon nëbb ne dañ ma jàpp ñu mu ñu ko ko wax te neuf mois yàgg ma ne la sama yaay heureusement sama yaay xam nga euh, dafa am bon dama naan ku nekk ni yàlla bindee dañ ko doon nëbb ndekete biir néegu dafa am télé mm-hmm. mu gis ne jàpp nañ ma mais ku ma ku ku ñëw bëgg jaar ci moom dañ ko naan bul jaar ci yaay oustaz de maanaam bu jaar yi bëree danaa ñii lu ñu fiy def ñu nëmb ko sama ñaari tonton yi day ñëw ci néegam toog toog diir waxtaan moom bëggeen du ñu ko ñemee ngaan sama tonton bi dafa am benn mu ñëw xam naa ci suba si ñëw toog fa toog fa toog fa ba côté ay deux heures yooyu man wax maire mu génn quoi war a kam ne ko non man ma ko wax maire bi de yow yaa koy jéem a waxi su lay ñëw tonton su mu ñëw mu ne waaw maire léegi xam nga yaay bi booy la ñu wax yaay bi booy mooy man sama yaay. su sama tur la ñuy wax wax sama yaay ko léegi mu ne ko ah problème mu Assane laa doon wax commencé rek maire bi ne ko waaw Souleye loolu ma xam ko fii mu ne ko maire da ko xam nga noppi mu ne nan laay def xam naa ne jàpp nañ ko di mais lu may def toog mais gis nga bi ma ko njëkkoo kaso moo njëkk wax ci téléphone ne dañ la jaay doole téy la te dina jeex. ma sant yàlla. Hmm. ma ne comme sama ay mu amul traumatisme boobu ak aasam. sama ay quatre vingt na léegi mu am quatre vingt douze ans. macha noonu ba yaay ñëw di jàmbat muñ la toog leen muñ leen dina jeex. Mhm. alhamdulilah boobu rek bu nekkoon bu ñu yar ci affaire kii loolu sa doom. mu ci doom rek xoolal aasam mais yàlla génne ko si. Mhm. kon yooyu yëpp jar na ndàmpaay tiitaange boobu rek. waxuma nag nga yóbbu nit ki juróom weer bàyyi ko ci àll bi doom yi soxna yi. Euh, ndeysaan bu ñëwee tawte dañu daan tawte tooy oto du am ñu dox n'est-ce pas. Mhm. yooyu yëpp xam nga dafa metti te xañ nit sa njaboot sax loolu rek rek te deful dara ndax bàyyi la laaj. Mhm. su ko defee nag man ma dugg ci foofu rek mm. euh, kaso metti na. Mm. d'accord nee nga rëccuwoo ko parce que da nga doon def te yàlla tax. Mm-hmm. mais di nga toog mu metti ba ba lii nga wax ni am loo xam ne nit dina ko dégg yaramam daw. Mm-hmm. psychologiquement am na lu mu def. waaye tamit côté imaan am na lu mu def nan nga nan nga nan nga nan nga dundee mbir mi psychologiquement ak côté imaan parce que mhm. parfois sa xel am ci lu mu dem. dëgg nit mën na saalit. dëgg la d' accord mën nga nekk nitu yàlla nekk nitu dina saalit. dëgg la euh, mais nga xalaat njaboot gi parfois sëngéem. dëgg la nga xalaat yaay booy sëngéem loolu. naka la dëgg la waaw yaa mooy rappelé. Mhm. jour tëmis gi nag laay doog a xam ne tëj nañu ma. gi. ma war a tëmas gee ci kaso laay doog wax gars nag maa ngi kaso nag ma toog du ma tëmas gee sama kër tey jii jii may ree quoi dama doon def ree sax. Mhm. te pas salit mais ci laa xamee dëgg-dëgg ne nag maa ci sentir ne maa ci kaso bi tey du ma tëmas gi sama kër sama frère. Euh, suma doomu frère la ñu yónnee sax xam nga dañuy yónnee imam yi parfois pour ñëw jiite ci biir kaso bi. Mhm. ñu yónnee sama doomu mag pour ñëw jiite si. man dama ko doon nëbbatu ci sàpp yi parce que bu ma gisoon xutbaam du àgg. te moo ñu war a jiite ma ñëw ci deuxième sàpp heureusement ma yéex a génn sama chambre fekk sàpp bi ci kanam fees ma ñëw gis ko rek ma ne eh, Mouhamad la ñu yónnee ma ñëw sàpp ci ginnaaw sori ko nag bi ñu julee pare nag laa ko doo a feeñoo. ma ne ko dama bayoon nga gis ma ak xutba bi ak julli bi mu def la neneen quoi. Mm-hmm. xam nga ngëm rek nga mën a am ci yàlla. dama daan toog ci kaso ma ne booy bu leen niilal seen kaso. bu leen niilal seen kaso. dëgg la niilal kaso mooy tëdd fi di sport di lekk bi génn fexe leen. kaso bi defar leen bu leen fi yàqoo ngëm googu lañu doon demee ba am na jour soxna si ñëw ne ma waaw sa mandat dépôt da doon wax bu amee six mois dañ lay bàyyi xanaa bu jeexee dina baa ne ko nii pare nañ ci man yàgg na yàllaa pareegul ci man rek heure bu yàlla pare ci man daf may génnee mm-hmm. ñi pare nañ ci man kon ngëm googu il faut nit di ko demee ci kaso bi parce que psychologiquement effectivement da ngay toog nekk ci xalaat yoo xam ne yi boo deful ndànk mm-hmm. mën na la yóbbu feneen mm-hmm. mais hmm. alhamdulilah alhamdulilah ñun suñu chambre da daan xumba ak ay débat xam nga man su ma génnee ci garde yi am na garde yoo xam ne sax euh, pratiquement euh, dañoo dem ba mu bëgg ñu leen di jàngal euh, yooyu yëpp nga xam ne da lay yóbbu ci nga xam dama daan wax garde yi ni yéen da ngeen jàpp sama yéen sama sama kii ngeen jàpp yéen sama yaram ngeen jàpp jàpp sama xel quoi hmm. man ne dama leen ne sama yaram ngeen tëj waa yéen dañu la garde loo sama yaram mais sama xel mënu leen ko téye hmm. ñu parce que dañu nekkoon sama xarit kon ngëm googu dañ koy yóbbaale ba xool depuis tribunal bu ñu ma dóoree mandat dépôt toujours ma nettali ko benn pénitencier moo ma génnee bureau juge bi pour indi ma yóbbu ma kaso ci couloiru tribunal bi la may laaj oustaz suñu dàll yi nga xam ne dañ koy takk liggéey bi day tar ndax mën nañ ko jullee sama xel ne ma mais waa ji laaju ma ndax dañu ma dóor mandat dépôt wala moom après mu def mariage comme pénitence yi dañ ma yàgg a xam xam man dama daan dem kaso di waxtaan ak détenu ay at ci ginnaaw. Mm-hmm. xam nga mas naa dem rëbës. Mm-hmm. sept ans ci ginnaaw ma ñëw toog ne leen kaso bii bés dina ñëw mën naa leen fi fekk. Mm-hmm. parce que gis naa ne li tax ñu leen di tëj benn da ngay juum kenn du la baal. wala ñu tuumaal la wala nga tey li nga def kan moo mën a mucc ci loolu. dañ lay tuumaal tëj la wala nga juum kenn du la baal ku ci mën a mucc. xanaa tey sax ngay gis mu xaw raar ma toog sept après wala boog lu ko jëm ma fekk leen kaso man leen walla lii nag maa ngi ko doon wax man neem yàlla ma ko doon wax loo kon yàgg naa dem ci kaso yi di waxtaan ak détenu yi di gis détenu yi li ñuy dund kon loolu wàññil na ma lu bëri ci coono kaso kon gëm yàlla googu yàlla jàpp leen ci ñu sant ko ci parce que bu dul woon moom mën naa metti yàlla xam na ne euh, Aline jàpp nañu ma ba ni ma delloo suma kër benn tranquillité bu ma am musuma ko am avant ñu may jàpp xaw ma ndax yàlla da parce que man dama doon dafa am waaj ma mosoo ne ma defal ndànk dafa am waaj yoo xam ne daf ma doon jox information ne yow da dafa ma doon signal dinañ ma jàpp mais pour man yooyu ay wax la quoi defuma lu ñu may jàppee mais effectivement bi muy xew fekk solu naa ba yére bu weex tàll di dem mariage sama jarbaat noonu lañu ma téye yóbbu ma yére boobu fanaan moom ñetti fan yoo xam ne dafa dand xam nga dand dand ngeen di wax. Mm-hmm. tilim <laughs> waaw fële fële comment dire encore. garde à vue mm-hmm. garde à vue ma remercier tamit sama benn jarbaat policier la dama ñëw vraiment mu ne Moussa yow doo tëdd ci karo yi de génne mer dama tëdd fii jàppale ma foofu quoi xam nga moom tam nga laal karo yi. Mm-hmm. ma tëdd ci mergadu bi deux jours yi troisième jour bi laa fa tëdd ci sama sajaada bu ñu ma yónnee woon quoi foofu plateau la quoi parce que ma doon jëlee plateau di ma andi centrale di ma enquête juba delloo. d'accord dañ doon def va et vient diggante. d'accord mm-hmm. tey dañoo xëy gis ay journaux yu bind ne président Macky Sall ak plainte bi ñu ko plaintoon ci affaire crime contre l'humanité euh, euh, tribunal ba ca France da koo da koo rejeté. Mm-hmm. ñi nga xam ne dañu nekk. victime ñii dugg kaso ñiy loru la ci ñii am ñu ci dee ñii di laaj pétition euh, maanaam groupe boobu.